jëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare société ginnaaw ba ñu leen nuyoo ngeen taaxe lu ñu jukkil leen tiis bi nga xam ne moo xew fële ca diwaanu Kédougou benn xale bu góor bu am 20 ans la ñu daal di faat nag ci anam bu doy waar mbir mi nag ginnaaw loolu eh, xale bu góor ba bu nga xam ne moo am vingt ans rek dafa soli woon li nga xamante ni moo di kankuran daal di ànd nag ak ay moroomam ngir dem ci cérémonie boo xam ne ñoom ñoo waroon gérer li nga xam ne moo di ambiance bi ak yooyu ci la ñu ak yoon bi nag ak yeneen i xale yu góor euh, ci la daal di am rek problème bu ndaw maanaam ay jàppal bàyyi euh, ci la am kenn nag koo xamante nii dafa jël xale bi nga xam ne moo sol woon kankuran bi rek daal di koy jamate ay paaka ba mu jaaree fa ñàkk bakkanam euh, gannaaw mbir moom nag bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ni ñoo génne information bi ñoom rek nee nañu am nañu njortu ne xale bu góor boobu nga xam ne moo faat ki nga xam ne moo sol woon kankuran bi ay xarit lañ yu yàgg waaye mbir moomu banaa ba mu amee ñi nga xam xam ne ñoom la xale bi am vingt ans te mosul woon kankuran bi àndal dañu daal di rek bàbbeeku dem ci kër ki nga xamante ni moo faat xale boobu daal di caxat-caxatee kër ga waaye taal ko ba mu jeex tàkk mbir moomu nag ginnaaw information yi nga xamante ni mujjee nañu ko cee jot mooy xale bu góor boobu nga xamante ni moo faat bakkanu xele bi nga xam ne moo am vingt ans yoon daal na koy teg loxo file ci diwaanu Ndakaaru jamono yi nag enquête bi mu ngi wéy di am waaye ñun tamit ñu ngi wéy di topp li nga xam ne euh, moo di information bi li fi jotal a ruusandi rek ñu jukki leen ko jërë ngeen jëf ci topp bi ngeen ñuy topp ak taamu bi ngeen ñuy taamu